aawuzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim barke xadimal mustafa ku bëgga am la gaaya am muy saaba yaag la mag ñaam ci bamba am na nag lu am lool ku ko jëf danga ko am am la am muy saaba yaag la mag ñaam ci Bamba am na nag lu am lool ku ko jëf danga ko am li ci jaamu i joxe ñam rawante naag ay ñam yu jëm ci gaa yu wér dëggal te gëm yàlla te sax ci ndigalam benn tibum ñam yow nga jox ko nit ku xiif mu ko seex junni jumaa yow yoo tabax geenu jëm waaw kon ku togg al juma bernde yu doy yóbbu juma yu sëñ bu mag mi man dama xamut li leeluy mandaxeem añ bi quatre-vingt doon suñaa fe muxtaar moo fa quarante mille ya yen woon ab diir bu yàgg muy sasam añ bi katarwe mil la doon soñaafe muxtaar moo faboon quarante mille ya yen woon ab diir bu yàgg muy sasam fële càngal mu am murid yu jaayante yu gëm xam ne jumaa ji ay mbiram warta taxaw day dox di dem ñaandu koog réewi tubaab ak réewi Afrique ak Yurop ak Amerik aseek arab ñépp ku ney waajal añam ñaandu koog réewi tubaab ak réewi Afrique ak Yurop ak Amerik aseeg arab ñépp ku ney waajal añam junni jaayante deren lañ bëgg ñoom bëgg ko dewen ma wax la tàmbali bi kon kum neex nga jiitu ko itam le quinze décembre bi nu jëm lay tàmbali ba weeru quinze janvier lañ bëgg itam mu sëkk du des dërëm sëñ Muntaxa lañ dem fi moom leeral koko mu wax ne moom daa yéene woon lii muy yitteem jëf ji da ngeen ci làqi ndam Muntaxa lañ dem fi moom leeral koko mu wax ne moom daa yéene woon lii mu jëf ji dangeen ci làq nga katar we mil yile ba muy junni yoon limbile katar we mil yoo xam nga lii naa jagal feeg fanu jëm gis nga katar we mil yile ba muy junni yoon limbile quatre millions xam nga lii mën naa jagal feeg fanu jëm alhamdulillahi rabbil alamin